abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am xibaar. daleen ak jàmm seen chaîne bii di FTTV Sénégal ñu sukkandikoo ci Dàmbo ci ne lu waa SAEMS e ak waa CUSEMS e lëkkaloo ne dañuy jàmmaarloog état bu Sénégal ngir xeex ak xëkkëleefu enseignants yi ne loolee du lenn lu dul ab film. ndax ñooñee dañoo lëkkaloog état bu Sénégal ngir amal li ni mel sukkandikoo ci dàmbooj ne lu sabab mu wax li ni mooy que ne avant waa CUSEMS ak waa CEMS di mener seen plan d'action boobee daal di koy dippee ne morte ne li mu syndicat yu nekk ci école bi yëpp ñoo d'accordoon que ne ren dañoo war a jàmbaroog gouvernement bu Sénégal te si li ni commencé woon nañ di démarcher ngir syndicat yu nekk ci Sénégal yëpp daal di mëne benn plan d'action amandaloo ko ñoom ñëpp ne syndicat yu nekk ci Sénégal yëpp boo doon jël seen lim wees na fanweer waaye ne syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy syndicat yu représentatif maanaam syndicat yi nga xam ne bu amee ay jàmmaarloo ak état bi ñooñee ñooy toog ci table de négociation yi ñooñee juróom-ñaar lañ ne ñooñee nag nga xam ne ne CICEMS ak CEMS si lañ bokk ñoo bëggoon a amal ab ngandam plan d'action daal di ciy boole syndicats yi nga xam ne sax dañ leen di considérer comme ay syndicats non représentatifs ngir ñëpp daal di si ñëw daal di si jàpp ñu daal di songu nguur gi amal fii ab grève yoo xam ne ne mosu fee am daal di paralyser système éducatif bi yëpp. waaye kii di Dame ne. ginnaaw ba ñuy commencé di amal plan d'action boobee ngir paralyser système éducatif bi lañ jékki-jékki daal di gis CUSEMS e ak CEMS e daal di beddeeku daal di amal seen plan d'action boobu li nag nee du guleet ndax li ni mel CUSEMS e ak CEMS defoon nañ ko ci année scolaire bi ñu génn maanaam daaw te loolee bañ ko defee woon tamit te amul woon doole ay grève yi nga ñàkk solo lañ fi amuloon ci réew mi di Sénégal mais loolee nag lañ bëgg amalaat ci ci ren ci réew mi di Sénégal ngir ñu amal fi ay grève yu ñàkk solo bu ko defee ñu bàyyiwaat grève yi ñu gouvernement bi daal di jëlaat te système éducatif bi daal di koy coloniser te ne li ni mel waa CUSEMS ak gouvernement bi ñoo ko déggoo ndax ne ci biir ñaari organisation syndicale yooyu am na ki nga xam ne ne ab conseiller la te ci conseiller président Macky Sall et la bokk tenaient un syndicaliste là en même temps. Abonnez-vous Abonnez-vous à sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne ngeen